seen bokkum taal bi Moustapha Guèye taal bi sëñ Sama Samba di soppib sëñ Mbàkke ma maam soxna Lo Diop Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi di encouragé sëriñ Mamoor Mahamadou Cheikh Moussa Cheikh Mahamadou Murtada al mujahidul akbar ci toolub l'islam bi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci liggéey di maamam Cheikhul Khadim di ci liggéeyal waajuram wa Cheikh Mahamadul Murtada di ci liggéeyal l'islam ñoo koy ñaanal yàlla defal ko ci tawfiq bu ànd ak taysiir ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmadul Xadim barkeb Cheikh Mouhamadou Mourtada al Mujahidul Akbar tam ànd ko sëñ Muntaxa mi fi nekkal sëñ Tuubaa te di ko ñaanal mu yàgg fi tuwér xam naa fi ñuy tàmbalee sunu waxtaan daal loolu arab naan innama umamul axlaaqu ma baqiyat wa inhumu sahabat aqlaahum sahabu loolu rek foofu la ñuy tàmbalee jëkk nag wala toftal ko ci man raa minkum munkaran fal yuxayidu bi yadihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne boo gisee lu ñaaw ci diine boo ko mënee faj sa loxo faj ko ci boo ko mënta faj ci sa loxo faj ko ci saw làmmiñ mooy nga reeteet ko soo ko mënta faj ci saw làmmiñ nag ah faj ko ci sa xol naqarlu ko te yàlla tax ñett yooyu nag wax dëgg yàlla amul benn jullit boo xam ne si manqué ndoo nga ñett yépp boo amul kàttanug faj ko ci loxo am nga kàttanug man koo wax ci làmmiñ reeteet ko ba àddina si ko kon bu dañee yaa ngi ci biir soo mënul ñaar yooyu yépp nag <clears throat> xol baa ngi fi naqarlu ko noonu nag wax dëgg yàlla boole nañ ci ñaar mën nañ koo reeteet mën nañ koo wax ci làmmiñ te munkar jooju weesuwul l'islam ji nga xam ne amul ndey amul bàyyi ci Sénégal l'islam joo xam ne sii fi mu toll nii daanaka ay pàcc lañ ko def kenn ku nekk nekk ca la nga nekk nekkal ca sa bopp nekkal ca kër ga bàyyi jëmmi l'islam mu nekk tool bu booy lu ko neex dugg lu neex waay def lu neex waay wax te it ñuy toog di seetaan bëgg dund ci jàmm lool du ma a nekk tey ji boo gisee tey jii ñu ne aw askan day bu fekkante ne jàpp nañ ne ay jikko la ñoom ñëpp bu jikko ya yàqoo rek lépp yàqu na kon loolu it mën nañ koo jàpp tey jii ci lii nga xam ne moom lañ bëgg a yëkkati di ko wax te lii nu naqari nag yàgg na naqari yàgg nañ koo wax waaye dañ cee amul ku ci dimbali ku dul yàlla amuñu it ku ñu ci jàppale ku dul yàlla waaye suñ moroomum jullit munu ci bokkandoo aw naqar ñu am baat am kattan mën cee yëkkati kàddu wala ñu mën koo faj jàppale ñu ci moom musta am bu weesoo ñi ñu ciy encouragé man ku ma xam-xam ne yàgg naa ci yëkkati samay kàddu di ko wax donte xam-xam bi ma tew ko léegi nag <clears throat> critique média yàgg naa koo def muy critiquer média yi nga xam ne ni ñuy doxale ci Sénégal baaxul dëppoo wut ak <clears throat> suñu culture dëppoo dëppoo wut ak njàngale mag ñi dëppoo wut ak alxuraan ñett yooyu nag lépp luy dox ci réewum jullit te dëppoowul ak ñoom <clears throat> loola la ñu war a def mooy taxaw combattre ko mu jóge fi te loolu gis nañ ne médias yi bés bu set la ñuy rakkaaju waaye nag ñoo yey ndax bu fekkente ne alal dafa la dafa ëpp say at te ku la topp ci sa juróom-ñaari maam amul menn maam moo xam ne li nga yor ci alal mën nañ ne ca ko doon ku xool say atit bi nga dalee mënal sa bopp di liggéey gisuñu lenn loo mën a yaxantu lu la mën a may ay milliards kon nag milliards yooyu bu nit ki jekki-jekkee am ko jekki-jekki ubbi ci entreprise gaawaay boobu yi buñ nekkoon ci réewum droit war nañ leen a yóbbu ca cour ba buñ demee ñu jéem leen atte saytu leen ba xam alal jooju fu mu jógee ndax ONC yi yàq lislaam taxaw nañ temm yor seen alal te alal lañ jàpp ne mooy armo bi gën a gaaw ci yàq lislaam te bala ñu ko def nag fi barab réew mooma dañ leen di xiifal sonal leen duñ leen jàngaloo seeni ndaw yi ñëw ëllëg duñu xam dara xiifal leen wan leen àddina xemmem loo leen ko ba nga xamante ne si duñ na siiw lu dul jot ci àddina xiif leen ba nga xam ne duñ na siiw lu dul lekk mar leen ba nga xam ne duñ na siiw lu dul naan ñu door a jël nag alal ji maye loolu dikk nag ne ku nangoo jël sa diine jaay ñu ko ñu dugal ko ci saaku bii wacc ci àll ba loo soxla ci alal ñu mën la ko jox bari na tey ñu yor ay kër yooyu entreprise moo xam média la moo xam société la moo xam lum mën a doon te alal jooju moo ko fondé ku waxul dëgg waxu fen te loolu ñi ko am dañoo defe ne dañoo mag nit ñi dañ leen ëppum xel di jéem nelawal al askanu senegal fokk ñu wutal ko aw lay sëñ diwoo ma ñaanal sëñ diwoo tax li ma am ma am ko moo ne sëñ diw moomu da yàgg nga liggéey lu yàgg yàgg yàgg yàgg di souffrir di sonn te sëñ diw a nga fi woon lan moo tax loola amoo ko woon est kon li nit ñi di njort di ko xalaat amul muy ONG yi nga xamante ne si ñi ngi yor seeni financement te ñaari réseau yi ñooy yi ëpp doole ci àddina bi yi nga xam ne ni moom ku bëgg alal ju gaaw léegi léegi léegi léegi léegi te seetoo ci yàlla mën a jaay sa diine ñu jox la ko muy ban muy li ñuy wax homosexuel muy borom ñaari tur képp ku ci nangoo soobu tey jii moom loo soxla ci ay millions wala nga soxla ko ci milliards mën nga ko am ndax ñi ci dugg yëpp di tuddoo jullit te dëkk ci Sénégal yoroon ay turi jullit tey jii gis nañ ne soppi nañ seen turi jullit ñu ngi ci pays euh, occidentaux yi nekk ci di def nu mu leen neexee yor seen i xaalis ñu wutal leen sécurité képp ku leen laal am nañ association boo xam ne si des na dal ci kaw ab état sax ñu mu wuta dal ci seen kaw waxuma laag citoyen simple waxuma laag nag diine bu fekkente ne leneen li ci des muy wàllu franc-maçonnique ñi ci bokk bari na bare na ci foo xamee ne ni tey jii ñoo xam ne tey bu ñu la waxoon tey jii seen alal ji gaaw gi mu gaaw waaye bu ñu la waxoon nañu ko amee da nga xamante ni si lii jërul jaay ngor jërul jaay diine ndax ci àddina rek la yem te it àddina jooju doo ci dund num la neex te bu sab gàpp jotee nga dem ci te da nga fi xat lool ndax yàlla dana la teg ay nattu ci àddina te boo faatoo wala ngi seetu billahi lay nga bëgg a del si àddina te dootoo del si àddina loolu képp moo mën a maye alal ju gaaw ji ndax koo xamee ne que nii bi nga juddoo léegi mën nañ ne amagoo cinquante ans nga yor fi ay milliards yoo xamee ne que nii milliards yi wóor na la ne milliards yi moom liggéeyoo ko wa doon ko ci menn maam ah wax dëgg yàlla day boo dee tuddoo ab jullit te amoo ko ci ngor amoo ko ci diine a ah, amoo ko ci coono jàpp naa ne tey l'islam dana am problème foofu te ñuy xeex l'islam yépp ci média lañ ko bëgg a dee lañ ko bëgg a jaar média ndax média moom moo mën a dem ci àddina wërngal këpp te fa mën a dem yow ci sa bopp mënoo faa dem dugal nañ ko ci satelit bi fu waay nekk ci àddina boo amee internet da nga ko am dugal nañ ko ci internet bi bu fu waay toll boo xoolee YouTube da ko ci fekk mboolem cellule de communication yi nga xamante ne mooy ay application tey jii foofu taxaw tey boo amee sa connexion tey mën nga koo seetaan loola nag fexe nañ tey ba jënd ci temps bi nga xam ne moom lañu ñu waroon a am ci lislaam ba nit ñi fu ñu toll koo ci gis mi ngay ko téléphone am mi ngay ko tablette am te seen xam-xam du ci dara lu dul ci cellule yooyu ci lañ koy kal ku toog fi ngay toog ba ba ngay tëri yaa ngi ko uuf téye ko épisode boo génn déggoot beneen site boo dugg génnaat beneen yaa ngi boole fen yaa ngi koy boole jëw yaa ngi koy boole xollu aram yaa ngi boole sànq temps bi nga xam ne mënoon ngaa téye alxuraan di jàng mënoon ngaa téye xasida di jàng mënoon nga cee jaamu yàlla mënoon nga cee mënoon nga ko jël jox ko diine temps boobu bépp fexe nañ ba jaarale ko ci li nga xamante ne si mooy internet jaarale ko ci ay télévision nga xam ne fa l'islam ja nekk ca Sénégal te am fa doole ba ñuy wax quatre-vingt-quinze pour cent de musulman ay découdeur yoo xam ne boo nekkee ci sa kër dañ naan la temps nga koy abonné boo ko abonné da nga am nangami seen de télévision nga daal di profito daa di koy abonné am na ci kër yoo xam ne si lu mat ñetti télé ñeenti télé néeg bu nekk dana am télé saal ba am tele nit ñi am jot jigéen ñi nga xam ne dañuy am jot jël seeni xale série théâtre buy daw ñu dem capté ko ci jël seeni gone óof leen bu nu jógee ca daara ja jàngi alxuraan ba ñëw duñ yàkkamte dul wàcce ba dem toog ci seeni néegi yaay wala ñu dem toog ca saal ba uuf seenu télé luy daw ci télé bi ñu xam ko lépp luñ jàngoon ci alxuraan danañ ko déchargé waat loolu ku ci bëgg a yar sa njaboot ci diine xam nga ni yaa tey ne da ngay jéem a nax yàlla waaye xam nga ne sa bopp ngay nax foofu gone mënu fee mokkal alxuraan gone mënu ci am alxuraan moo tax gone yi ci ëpp tey boo ko xoolee ci biir réew ma li ëpp ci seeni seeni seeni seeni doxin nangootu ñoo jàng alxuraan bëgg nañu alal nangu ñoo liggéey te it amatuñ kilifa loolu nag médias yi képp ñoom ñoo ko def te tey jii ñii di coow ñëpp nga xam ne islam jëralu leen dara te buñ ko doon xeex tàmbale ko ci seen kër seeni i kër tey koo ca dem yaa nga fa fekk antenne boo xam ne nekk ni mën na cee jàpp télévision yi ci àddina bépp mu fara ca xaalis bu bu bari xëccal ko ay soxnaam xëccal ko njabootam ñi mënta dugg ci néegi dem ci salle bi dem di ko fi seetaan série théâtre buy dem am na am na ci mag ñoo xam ne ay màggat lañ moo xam ñu jigéen moo xam ñu góor ñoo xam ne la leen waroon mooy toog ci seen i di jàng di di jaamu yàlla ak di jàng ak di wérd ak di jéem a orienté mag ñi ñooña da ngay gis ko lem sag basag sànni fa la yor sa kurus taxañ ko dem dugg ci sa biirub néeg wala nga dugg ci saal ba gën a xam gone yan série théâtre yi daw am na série théâtre yoo xam ne ki ne kenn xamul lim toll te Sénégal ko gis la fa nekk ci ay chaîne de télévision kon war ngeen a xam ne diina du fa taxaw am na télévision yoo xam ne si seen yitte du lenn lu dul créer ay émission yoo xam ne si xëy na mbas mee tax mais heure bi daana fekk mu démarré bu yàgg xale yi douze ans xale yi treize ans xale yi un euh, xale yi euh, neuf ans ñoom lañu fay jël ñii ngi doon jàng ci école yi ngir war a mën a mën a am lu ñu seere ëllëg ci réew mi ñu daal di leen wax ne nag ñëw leen ñu bokk ci émission bi ku ci bëgg a bokk da ngay bindu barab sàngam defal la ay facilité waxtaan ak say say waajur fekk ñu xiif sonn nga yëkkate alal jox leen ñu jël gone ya sànq leen nga ñëw di leen toppandoo leen waykat sàngam ñu di ko répété ñetti weer ba heure bi concours bi jot kenn ku nekk taxaw di toppandoo ab waykat duy ab saal ba fees dell xale yi di jàng di jàng nu ñuy woye di jàng nu ñuy bëggante di jàng nu ñuy mën a fexe ba am aw coro coro it di fexe nu ñuy fexe ba am aw fara lii de mooy télévision Sénégal te ñoom ña koy def seeni doom duñ ca duñ ca bokk te bari na ñu doon jàng ba seenum jàng dem bay commencé di avancé ci wàllu tubaab dañoo xëy xëy yàq seenum njàng ñu ne siiwa nekk ay musiciens wala ñu nekk ay musiciens ñu dem a dem a dem a dem ba loola gis ngeen garawale gi gim ci jur magum jëmu mucc wi yow rek koo xamee ne que nii matu matu ko sët ba gis nga ko tey mi nga ci kaso bi doomam it nekk di way di génnew yaramam di jaxasoo ki góor di dugg fu mu warta dugg lii nag moom la senegal di dund ba ci nag théâtre bii nga xamante ne si tey jii moo jàbbaa jongi lépp te ki nga xamante ne si ci telem lay jàll ñëpp dégg nañ kar yaram mooy wax di ci jéem a làqatoo l'islam wala mu ci jéem a làqatoo yoonu murid ba wax ne am na sëriñ boo xam ab sëriñam sëriñ ba dama koy tudd muy sëñ Mbàkke Mohamed sëñ Mbàkke Mouhamed moom képp koo xam ne sii sa sëriñ la war ngaa jomba ba def lu ñaw wala nga di ko wax waxuma laa na nga di ko tudd ci loo xam ne que nii loo ca def nit ña xeeb ci lislaam wala nit ña xeeb ci yoonu ma murit loola ko ko ci def da ngaa tooñ sa sëriñ tooñ sëñ Tuubaa tooñ diine wax ne fii laa jaar ngir sëlëme ko nit ñi dëgg la ñaan am na waaye nag ku ñu ñaanal ku nekk bu fekkante ne la ngay doxee ci sa ngor te di ko sàmm mi ngi ci yow doo am mukk alal yu ñuy coow doo mën a ubbee ay entreprise di ci def lu la neex kon xam nañ ne fondation entreprise yu bari moo tax tey nii ñuy doxee sañuñu ko bañ ndax gisoon nañ fi directeur euh, de télévision actuelle nii boo xam ne ba mu amagul organe te bëggoon ko di yëngu ci way taxaw na ci digg télévision Sénégal bii muy RTS taxaw ci di publicité préservatif ci mag moo xam ne laq nga cinquante ans alal jaral la nga jaay sa ngor ñu jox la préservatif nga taxaw naan lii mooy li ñuy yàlla ku bëgg a mucc ci li nga xam ne mooy feebaru sida bi da nga koy protéger woo di ko wax ci ndi ko way nit ñi ñu RTS di ko teg foofu mun àggee ba nit àgg fa te ne ab jullit la waxuma laag muy tudd sëñ Touba waxuma laag ñuy naw ak taalibeem waxuma laag mu jël ay nit yoo xamee ne que nii dañuy wax ci diine mu tànn ca ña ko arrangé cuub leen ba nga xamante ne si mbubbum diine mi dong la ñuy mbubba waaye jëfi diine yorantu ci ñu toog di ko daganal lam nekk di ko wooye ay ëllëji di ko wooye ay sëriñ di ko sant di ko gërëm ak tanaan bu fi matoon fukk bu réew mi dana dox waaye réew mi bu doxee ndax lislaam dana dox foofu mooy question bi en tant que nitug diine ku taxaw nekk éducateur di wax nit ñi war laa dégg kii télé bii nga xamee ne nag mooy tuddoo sëñ Mbàkke Mouhamed nga xam ne seen TV lañ koy wax ah guddi yi ñu toll de yoon wi ñu jël du bu baax ndax théâtre yi nga xam ne moom lañu ñu wax infidèle am épisode 1 ba épisode 9 te maa ngi koy topp te na ma koy toppee it la ma ci jublu mooy bu may wax mën a wax wax ju leer nañ seen théâtre bii de buñ ko bàyyee mu jàll sëy duutu taxaw senegal te mooy yàlla duutu jóg senegal sëy duutu am senegal te mooy yàlla duutu bi ndax li ñuy daganal ci théâtre bi mooy amal jëkkër joo xam ne si am nga ko ci protest yàlla sunna su Muhammad waaye bu la neexee mën ngaa am far loola lañ fay jàngale boo ko boole ko ay kaddu yu ñàkk teggin yoo xam ne si dara sutura amu ci kilifa mënu koo seetaan te yi ci la ñuy doxee di yàqu tey jii benn sëy mënatu ne taxaw Sénégal te sëy yu ndaw ñooy ñoom ñooy tas gone yu ndaw ñoom ñooy ndax sëy léegi liñ ciy jàngale mooy boo ci duggee yaay moom sa liberté li maam def sa yoon nekku ci kilifa amut du too am lenn diine nag dama koo jëlale du ci col gi du ci wax ji du ci jëf yi nga wayyi sa jëkkër ci kër gi dugg ci am oto ànd ak koo xam ne moom it dafa bàyyi jabar ndax ñi yor jabar dañ leen a permettre ci eh, émi film bi ne leen mën ngeen a am jabar ba pare bàyyi ko fa dem di taxawal ci yeneen jigéen te alxuraan ne wala taqrabu si ne ñaar ñoo ñu dajee nag ñu àndandoo ci ab oto jëndal la téléphone jëndal la ay robb nga xam ne bu ñu la xoolee maanaam total bi bañ demee ci bitig ba lañ jënd wëlooru cinq cent mille la tam ñi ngi déclaré déclaré woon ne man robb bi ma bëgg mi ngi toll ci cent ci li ma seetal lépp te ci télévision télévision boobu lañ koy teg ba ñu dem ca magasin ba ba juboo ba mu jënd ko dugg ci oto bi di dem bu mu yàgg ndaw si ne ko dama am ngàdd daa di génnee ci kanamam gi lu mel ne ab mouchoir bu weex dégg nga génnee ci ni nga xamante ne mooy régal bi nga xam ne moom lay gis mu tax rip mu génnee ko ñu ne ko dajj ci télévision bi gone yi di ko seetaan miim réew bu ëllëgee fan na jëm boole ko paral yoo xam ne moo teg kaseti pour na ñoo yem teg kaseti pour na ñoo yem ndax amu wódduñu ko ndax du ci du ci du ci biir émission bi lañ ko wala biir film bi ci lañ koy jéem a segg waaye dañ na ko dagg ci kaw gone gi di ko dégg mag mi di ko dégg xale yi jigéen yi di ko dégg moo tax benn sëy taxawatul ci biir Sénégal fi mu ne jigéen yoo ci gis lu mu taaru taaru boo ko laajoon mën na la damaa divorcé am nañu divorcé ñaari yoon am nañu divorcé ñetti yoon noonu laay toppee épisode yooyu épisode yoo xam ne si jabari jàmbur day ñëw góor la ngoog moom di dugg ci am ndox dépp di jël ndaw si di ko yëkkati ba njiit laayam li ci biir di feeñ ñu ne ko dajj ci tele boo xam ne si à travers de monde ñëpp a koy seetaan ana ñiy xeex droit de l'homme fan lañ toll ana CNRA fan la toll CNRA moo ne bërki démb gis nañ ne télévision bii muy wax seen TV defoon na ko euh, message d'erreur ngir ne lan ngir xeesal bu muy teg xeesal boo xam ne da koy publicité ba nga xam ne waaje wax na ne investir na ci ay millions yu bari kon du mën a dakkal publicité bi ñu ne ko boo ko dakkalu dañ koy tëj te effectivement tëj nañ ko waaye léegi bàyyi xesal ba mu jàll ak bàyyi émission bi nga xam ne ndaw yi ci biir réew mi yëpp danañ yàqu mag ñi danañ yàqu yor ay bakkaar yu dul jeex l'islam ñu bëgg koo naxasal bëgg a fay l'islam def ko dóom moog loolu lan moo ci gën kon général kon sa taxawaay war nga ko xoolaat général bii Babacar Diagne jiite war ngaa taxawaat xoolaat bu baax a baax baax sa doxalin li ñu la liggéeyloo de bu fekkente ne mooy li nga boo bokkut ak li nga jëf ndax yaakaar naa nag li fi li fi teg général mooy saytu mbooleem audiovisuel bi nga xamante ne nii ñoom ñoo yore seen i télé yor seen i internet la ca war a jàll te arrangé wu léem yi ndax réewi tubaab yi nga xamante ne si am na film yi ñu ci jàll am na cooy duñ ko teg bëccëg te régularisé nañ ko ba dañuy wax ne moins de 18 ans bu mu ko seetaan léegi nag comme réewi tubaab yi la ñuy roye te ñoom bañ a yàq seenu askan tax ñu di ko doxale noonu léegi lan moo tax Sénégal ñu jël film bi nga xam ne tubaab yi ñoo koy teg ñoo koy teg tudde ko infidèle ñëw indi ko waxuma la tooñ l'islam mais yoonu murit bi nga xamante ne si jël nañ ci sélectionné la ca gën boole leen ci biir loola kon mel na ne kon ONC yi li nga xam ne moom lañ jóg taxaw pour bëgg di ko xeex diine ci nouvel ordre mondial bii nga xam ne fii ne moom la ñuy déclaré ne moom la ñuy bëgg taxaw kon mel na ne mi ngi jàll mi ngi mi ngi jàll ndax yow sol yëre Baay Faal yor kurus yor melo Baye Baye Fall lan moo war a tax ñu jël melo baay Fall woowu di ko dugal ci infidèle xam nga fi mu toll nii mbir mi ñi ci participer daa bari parents yi participer nañ ci ndax yëratuñ seeni doom tax jox nañ leen ay moyens yoo xam ne si buñ mënta yàqu ci mbedd mi andil nañ leen ko ci seen i biir salle defal leen ko ci seeni i poche ñu toogee ca kër ga di mën a yàqu buñ demee ci bitti di mën a yàqu te dara waral ko lu dërëm boo xam ne ni moom nga bëgg a te dërëm boo am te jéeroo ko ci ngor da nga te nga torox te yàlla dana ci teg sanction te bu ëllëgee boo duggee ci bàmmeel da nga bëgg a dellu siwaat àddina kon trop c'est trop cinq bi jàll na démb kàddu yéen ci doon yëkkati kenn mu ndaw si dem di wayaase di wax na day dem Dubaay seneen ndaw si dem di ko wax naan ko yow ku la yóbbu Dubaay boo demee di xam nga ne saw yaram di ko fekke jaar ci digg bi ñëpp di dégg keneen ki ci desit fexe ba kooku ñuy tudde Baay Faal ne am mécanicien la mu invité ko ci néegam def ay pièces ba invité ko ci néegam ne ko dama bëgg nga defaral ma sama oto ci biirub néeg dem futtiku ba set sol yére yu bon dikk di ko provoqué te ki muy provoqué nee nañ ab Baye Fall la turu Baye Fall lañ ko tuddee te turu Baye Fall njëkkul ci njëkkul ci ci ci épisode bi am na télévision beneen bu mu bëgg njëkkoon na jaar nga xam ne léegi dañuy seet l'islam lim gën a bañ ñu ne danañ ko ci def seet lim gën a bëgg ñu di ko yàq waaye non seulement yoonu mu nañ seet la ca gën a baax wala la ca nekk ca kanam wala la nit ñi war a roy ba mën a doon ak tële ñu jaar ca tudde yàlla leen ci émission yu bon yi ñuy def gone yi di ko seetaan jigéen yi dutuñu nangoo sëy gone yi tàmbalee di jàngum ndoxan ku am jabar ba defe ne war ngaa mën a amu coro ku am jëkkër defe ne war ngaa mën a amu fara ñu tasaare ko ci réseaux sociaux yi jaarale ko ci youtube bi sénégalais yu perte bopp yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew it kenn ku nekk jënd téléphone bu cher boo xam ne si xamoo ca lu toll ne ci zéro pour cent foo wàccee daat koy jàpp ay mag yi jëm yu am 70 ans jàpp 80 da nga ne seen tànk nga ci buntu dee koo ci tariloo Fatiha mënu koo tari koo ci tariloo alxuraan mënu koo tari xammee wuñ farata xammee wuñ sunna xammee wuñ dara malagoy dox lañ muy mbaam muy dox ci kaw suuf lekk ba suur faxas seenu taat dem tëdd téléphone yooyu fexe nañ ba xam épisode yooyu di ko seetaan kër boo fa duggee fekk fa juróomi nit kenn ku ne dangay ngay sab sa nekk cay nab nabi te kamil alxuraan ba fee kenn du ko lal te xaside fee kenn du ko lal te lu too déglu waaraate li la manqué ci l'islam mënoo ko jéem a dem xam la loolu lépp di ab temps boo xamee ne que ni lu bon lii ñu jaarale ci média yi ñoom ñoo ko def te ne kenn du ko wax te télévision yooyu fi ñu toll nii li ñuy jéem a nax yi diina ji mooy xam nañ ne diina ji amul kilifa ndax diina ji bu ñu amoon kilifa danañ ko wutal pouvoir ci biir Sénégal mooy kenn ku nekk sa kër nga nga dem seere kenn tudd sa kër ku tudd sa maam nga dal ci kom bàyyi l'islam nag mu gent te lislaam di yor genn benn kaaba bi ñuy siyaare yor li nga xamante ne si mooy benn alxuraan benn kaamil téere bi muy alxuraan yor benn yonent ñu bokk ko ashadu an laa ilaha illallah ñëpp di ko waxandoo allahu akbar ñëpp di ko waxandoo laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñëpp di ko waxandoo ñu wut lislaam ay parti kii sañ di def lii kii sañ def lii am ci ñu manqué ñoo xam ne si lislaam la ñuy tuddoo te lu koy def lu araam boo ñëwee ci ñoom ñoo daganal ndax nit kuy def lu araam ba taxawal ci entreprise jël ay nit yoo xam ne da nga ne dañuy tuddoo diine dugal leen ci biir nga xam ne loo bëgg mu dagan ñu daganal la loo bëgg mu araam ñu araamal la ko te la nga nekk di la araam ñu war la caa yee génne la ca ndax non seulement nga yàq waa yaa ngi yàq askan wi ñu ne ca biir ne mbubum lislaam lañu yor dañuy waaraate yee te bu ñu la tuddee di wax ci yow lu rafet bu ñu tuddee keneen di wax ci moom lu ñaaw ji lislaam nan la baaxe lislaam ji amul pouvoir lislaam ji ñu àndandoowul waxta si moom bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu yàlla wax ko digal ko jullit yi ànd leen ci buumu yàlla te bañ a ko moom bi hablillahi jamii'an te walaa tafarraqu bu ñu waxee dëgg te yàlla tax kontatul biir Sénégal ci alxuraan ji dong la nekk waaye dund dundaluñ ko barke sëñ Tuubaa dundaluñ ko ndax koo gis fi ne nii sa pouvoir bopp ci lislaam la kenn ku ne lislaam na nga ko dégg ak nam la arrangé noonu ngay doxe ba pare yaakaar mu ci ëllëg tey jii bu fekkente ne senegal dem nañ ba am problème tey na quatre-vingt-quinze pour cent di musulman tey bu ñu amee problème bu ñu dikkee duñ ñu wax ak ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ŋànk euh, réew mi dara ñi ñuy dal ci seen kaw mooy ñu yore diine ji dañ leen di wax ay kilifay diine kon bu ñu kenn ku ne jëloon diine jaral la <clears throat> nga dajale sa njaboot ngeen dajaloo ci benn barab dajal te yàlla tax ngir jëm yonent bi sallallahu alayhi da ngeen mën a ba wutal ko pouvoir boo xam si fu ñuy nasaka noccee lu arrosewul islam ngeen dindi ko te sëñ Cheikh Mbacke doon na dox waaye sëñ Cheikh Mbacke mam cay yàlla dogalee mu jéem ca ba sonn ba mu fi jógee kan moo ko wuta ci loolu kan moo ko wuta ci loolu te ñii di defuk caay li tax seen caay gi am doole ñii ñu tuddee nit yi diine ñoo leen favoriser ndax alal diñ leen di jox ak pouvoir bi ñu leen di jox muy daraja ji ndax da ngay gis kuy def caay-caay am aw tur nga xam ne fu mu jaar gone yi dañuy daw di ko di ko xool ak di ñaan ci moom ay ujar mu ñëw dëgmal kilifa diine goo xam ne si ñëpp dañ la dañ laa yaakaar ngir jëmmi yàlla ji nga ubbil ko say buntu ngir la nit ñi tëlee ca moom ci ngirum seytaane nga nangu ko ubbi ngir di ko tiitaroo fan lañ jëm lii moo tax ñi doon def lu baax mënatuñ ko ndax ñi def lu baax non seulement mënatuñoo am dara waaye dañ leen di xeex kuy jàngale alxuraan tey ji mën naa na ci yalwaan ngay dee te dañuy jàpp di la bu ndoxataal di la duuma te kenn du ci mën dara te ñu yor l'islam jox ci alal tey buñ ci defoon wàllu social tey alxuraan du tumuranke buñu xaar ci kenn koo xam ne si da ngay ñëw naan dimbali alxuraan waaye buñ taxawee tey ba alxuraan tey ñu taxaw naan na ci état bi jox nangam ndax li muy jox élèves yi ni muy jox nangam booba waa l'islam ñoo njëkk a bàyyi pouvoir bi leen l'islam jox ñoo raxal alxuraan ñoo tasaare alxuraan nañu dëgg bu njaboot gi yàqoo ñiy tuddoo diina ñoo ko yàq parce que anduñu ngir na ñëw ànd ngeen seen i moo tax nattu yi du fi jóg mukk ndax duñu wax nit ñi dëgg ku yor alal bàkkaar boo mën a def boo dikkee ñu far la buggaan gi dani mii lii mu def nii moom moo la gën a xam ne lii tegu ko ci yoon waaye bu ngeen àndoon tey kër kër diine gu ngeen dem boo demee moo lay jëkk dugg te am na ci ñooñ boo demee dañ koy gërëm bu màggal jotee tey bu divisé tey ji màggal gi def ci la muy def dañ koy sant ak gërëm di ko ñaanal naan ko yàlla na yokk kuy def lu bon nga koy ñaanal naan ko yàlla na yokk kooku kon ki ñuy xeex lu lu bon tey kon tey fan la ñuy amee ndam télévision beneen bi ci des nga xam ne moom kuy def ab safaan moom foofu ngay branché sa sa sa kaabal tey ji kooku tey ji boo demee murit saadex lañ koy wax ñi ngi koy wax ay sëriñ ñi ngi koy wax ay alaaji te xëy ci lay moom lay def ci ndaw yi moom lay def ci réew mi te garantel nañ ko àjjana ne ko boo demee da nga ca faatu ndax sëñ Tuubaa nee na nii wala sëñ alaaji Malick nee na wala diw nee na nii ana kon kii karkari ci alxuraan di sonn di xiif di mar amul lu mu lekk kenn du ko sarax kenn du ko dimbali bu demee ba nga xamee ne dem na ba nar a nan lay def day mujj bàyyi alxuraan ja nekkaat ci leneen su ko defee division daal di am tàqali ko am jullit yoo xam ne si mat nañ trente kuréel ci biir Sénégal imaam yi ay kuréel lañ sëriñ si ay kuréel lañ tareexe yi ay kuréel lañ diina ji ay kuréel lañ jooju diine nan lay taxawee diina joo xam ne si loo wax doo ci gëm dara doo ca def dara diina joo xam ne si mën ngaa wax ba ñëpp dégg ko te ko xool doo ko gis diina joo xam ne koo waxal war ko diina joo xam ne si boo wax ak nit fen joo xam ne si boo wéetee jëw nit jooje diine tey jii buñ ko tuddee diine l'islam tey nan lañu ci mën a jariñoo ci mboolem li yonent bi doon wax fi mu ne daal li ma leen wax mooy saytaane jekku na am na ndam bu wéra a wér a wér a wér turi jullit nag moo fa nekk ak colug jullit mais jëfi jullit moom nekkatul biir Sénégal moom ñu néew ko ciy def bu ndeem am na matul sax 7 pour cent ci fu ñu wax réew mu ñu wax ne 95 pour cent yi lay nekk te bañ ko waxee léegi doon lay guñ ci virgule ñu bàyyi télévision yi ñuy def lu leen neex jël site internet def lu leen neex comme nekk bi sa site internet nga xam ne say site internet yi ak rajo yeeg télévision yi tey jii moo nga yor ngannaay armo boo xamee ne nii amuloo koy këyit maîtrise woo ko ñu jox la ko ku la neex dóor ko bal. média yee ko daw yàqub der yàq lislaam yàq jikkoy nit ñi réew mi du am avenir diina ju du am avenir kooku moo raw ñu jox la arme nga dem tiire ko nit mu faatu nañ waxante dëgg te yàlla tax. yàlla de na leen wóor na kenn mënu koo nax waaye li wér te wóor de diineem ji bala ñu ko sàggane ba kenn duutu ko jàmm dana fi dana raafal ñëpp jël leen tëral leen fi barab boo xam ne kenn ku nekk da nga ne siiwa dir siwaat àddina asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu